internet yi safoo di ñu seetaan à travers Dakar Buzz nuyu naa leen kenn ku nekk rek ci turam ak si santam waaye it di leen jaajëfal ci ànd beeg safoo bi ah, tey nag ñu fa yéene waxtaanee ca wala boulanger yi ak ñenn ci ñi nga xamante ne ñoom la ñu koy amal di autorité yi mu nekk lu ñu nemmeeku lool jamono ji ki leen fi teewal nag di wuyoo ci turu Khadim Silla yoor rek seen seen ay ah, kàddu tey nag dama koy bàyyi rek mu exprimé wu laata boobu rek dama koy nuyu Khadim maa ngi lay Euh, maa ngi leen di nuyu waa Dakar Buzz di nuyu euh, waa Sénégal yëpp te rafetlu évitation euh, bi maa ngi tudd Khadim Silla jiite collectif boulanger yi nga xam ne ñoo bootu ci FNBS ñëwoon fi tey ji doon indi ay leeral ci suñu secteur bi nga xam ne lu ëpp ñaar fukki at ak juróom FNBS président Amadou Gueye mi ngi ko jiite. ci jiiteen woo xam ne amul benn yoon démocratie euh, ku ko neex mu àndal ku ko neexul mu bàyyi amul benn compte ba muy rendal benn boulanger loolu nag moo waraloon tey ji euh, suñu ñëw fii d' accord laata boobu rek xaadima dañu koy dooree ak jaax-jaax bi nga xam ne am nga ko ba tey di la dégg ci yenn coowal boulanger yi xaadim fan la jaax waaw man maa ngi dugg ci boulanger 2000 euh, ci euh, Touba ci boulangerie Baye Dame Diop euh, maa ngi nuyu euh, Aliou ak sëñ Moussa mi nga xam ne moo doon suñu njàtt gi foofu bi ñu fa nekkee ba 2002 ma nekk gérant bi foofu fekk avant loolu jaar naa si bépp ñu may fay 300 téeméer ba ma jiite boulangerie bi bi ma fa nekkee di fa liggéey dafa liggéey ba ànd ak sama benn xarit bu ñuy wax Souleymane Sène ñu associé jënd boulangerie boobu ñu nekk fa di liggéey ba am beneen boulangerie Touba ñu am ñaar euh, loolu mi ngi am ci côté 2001 2002 euh, bi yàlla dogalee nag ñu liggéey nag foofu ba ay jamono yi 2007 euh, ñu am problème mu courant bi coupure yi bari foofu ñu ñu taxu ñëw Jurbel ñu xaajale ko ma ñëw Jurbel ci sama boulangerie foofu kër Cheikh Ibra Fall tudd ko Sëñ Amdi Xadi Fall Euh, liggéey fa ba 2011 ma tijji benn boulangerie bu ñuy wax boulangerie Serigne Mbaye Sarr euh, jóge fa dem Saint-Louis tijji fa ñaari boulangerie 5 septembre jóge fa euh, dem Kaolack tijji fa boulangerie Serigne Bassirou jóge fa dem Ngumba Ngéewal tijji fa boulangerie bu ñuy wax la Grand Mall Dakar jóge fa dellu si waat Diourbel tijji fa boulangerie bu ñuy wax Borom Njalab jóge fa dellu Fatick tijji fa boulangerie borom gaawaan daal di fay tijjiwaat yi pour sin ko mën mandoo fen am naa ci ñaar fukki at eh, ak ñaar ci métier mi eh, am naa juróom-ñeenti boulangerie eh, di gros producteur ci secteur bi am ci tuuti expérience. Mm-hmm. ak euh, jamono ji nag euh, ñu seetlu na lii te ci ay boulangerie bari nañu lool Xaadim ndax mën nga ñu ànd ci ay ay leeral ci lan moo waral mbir moom waaw xam nga li ko indi rek bi ci jiitu mooy njiit dafa am solo. njiit loo xam ne danga jiite ci lu tolloog junni entreprise ak juróom-ñetti téeméer ñu nga new euh, yaay yaay yaay yaay yaay njiitu fédération bi nga xam ne moo fédéré euh, région yëpp euh, njiit nag su dëngee dara mën jub waaye njiit su ju jubee lépp jub moo tax wolof naan tegale bu guddee te daanawul ba jiitu mooy jub ndax dañu seetlu ne ki jiite boulanger yi muy président Amadou dipp mu nekk fi benn boulanger mun la wax ci lan lay dox lu dul intere boppam Euh, xeexlul boulanger yi seen euh, seen seen seen njariñ xeexlu ouv ouvrier ñi nga xam ne ñu ngi si biir boulanger yi nga xam ne seen ay coon lañ nekk benn ouvrier Sénégal amul kër te ñoom toll nañ ci douze mille ouvrier yoo xam ne kenn koo xam ne boulanger la bu am kër amul ci secteur bi loolu nag c'est grave lu ko waral moom mooy taxawaayam bu manqué euh, bi si tegu mooy boulanger yëpp ñu ngi ci ay ay ay ay fitna ndax depuis deux mille dix ba léegi ñu ngi si ay ay perte yoo xam ne. Euh, bépp boulanger xam nga ne yow Isaan mëntu dem te loolu taxawaayam daf ci manqué lu ko waral mooy euh, mi ngi gëmloo état bi ne il faut ngeen financer boulanger yi financement boo xam ne moom mooy doon fournisseur bi ndax ndax dafa wax wax état ne ko da ngay fu euh, jàppale boulanger yi ndax ñoom dañoo sonn waaye jàppaleen wi da ngay leen di yokk ay matériel maanaam ci DER bi ak ci bureau émis à niveau bi waaye nag. man maay doon maay doon fournisseur bi man moom moom jaaykatu fuur la ba pare bépp boulanger buy indi dossier ci man la koy jaarale bu ñëwee ma xool ko laaj la trois cent mille soo ma neexee ma plaidé ko soo ma neexee ma ma pousse ne loolu nag mu nekk loo xam ne ñun boulanger yi nga xam ne vraiment ay gros producteurs lañu ba pare yàgg ci secteur bi xaw nañu jaaxal te ñun boulanger soxlawuñu ku ñu lebal ndax booy liggéey di perte ñu lebal la mais da kon li nga soxla rek yow boulanger du du ku la lebal soxla woo ku la may li nga soxla mooy ndax boulanger jàmbaar moo koy def jàmbaar mooy tijji bu fuur fuur lu gàtt gàtt di nga jël fukki nit ak juróom ba ñaar fukki nit ak juróom kooku nag yow bu ñuy wax des jeunes yow yow génn nga ci boobu kii jox sa bopp xëy waaye jox nga fukki nit ak juróom xëy kon jàpp ñaar fukki nit ak juróom kon yow euh, jàmbaar nga boulanger boo gis rek entrepreneur la boo xam ne jàmbaar la kon état jaaduwut mu koy bàyyi ci loxol koo xam ne. Euh, depuis vingt cinq ans état xamul lan moo xam secteur bi te état ñu ngi naan mi ngi jàppale boulanger waaye boulanger yi gisuñu jàppale googu kon nag wut seetaan entreprise yu toll noonu tollu ci junni entreprise ak juróom-ñetti téeméer ñu dem fayit état mën ci joxe tontu waaye mu mu mu bàyyi ko ci loxol koo xam ne vraiment amul benn yoon benn yoon euh, taxawaay ci secteur bi. alors gannaaw ba nga xamee ni situation bi yegg si na fii comme ni ma la ko waxee léegi rek boulangerie yu bëri gis nañu ne tëj na moom ak ñu nekk ci ginnaaw ginnaawam lan moo si seen taxawaay ndax ñëw nañ euh, gisante bi déedéet moom taxawaayam rek chaque jour mooy nekk ci diggante état ak boulanger yi mooy fexe ba état du wax ak benn boulanger moom mooy wax ak moom mooy tànn ñuy wax état loolu nag dafa am problème état du mën a xam fekk état dafa toog. Euh, ay ter rek lay gis lu mat vingt cinq ans yi yi kanam rek lay gis mais war euh, loolu du xam lan moo xew dafa war a wàcc secteur bi gis ñeneen comparé xam dëgg fan la féetee mais moom li ko ñor rek moom mooy financement bépp financement boo xam ne euh, jógewul boulanger yi moom du ci dox loo gis muy dox xamal ne xaalis moo ci am te état mën na ma seere loolu président Amadou mi nga xam ne moo jiite FNBS lépp loo gis muy dox xamal ne xaalis ma nga ca lépp loo xam ne xaalis nekku ca moom du ci dox te ñun boulanger yi soxlawuñ ku ñu lebal soxlawuñ ku ñu may li soxla mooy ku ñu arbitré ak population bi arbitré ak état bi mburu mi ñu jaaye ko li mu war a jar loolu la soxla ndax dafa am emploi bu am solo boo xam ne mi ngi si biir te population bi bàyyiwuñ ko xel waaye état du Sénégal bàyyiwu ko xel ndax plus de douze mille boulanger yoo xam ne ay ñooy defar mburu mi ñu koy defar ci fitna. di ko defal ci coona di ko defal ci xol bu tàng loolu baax soo ci population bi ndax ñëpp ay fanaanee nelaw ñoom ñu fanaanee xool di liggéey te kenn ci ñoom salaire am rombul quatre mille loolu nag ci douze mille personnes nga xam ne kenn ci ñoom amul kër kenn ci ñoom mënul fay ay assuré njàng doomam kenn ci ñoom mënul assuré euh, toppatoo soxnaam ni mu waree loolu nag jafe boo xam ne ñun ñi nga xam ne yàlla dimbali nañu secteur bi ñu nekk ci plus de euh, euh, vingt-deux ans am ci expérience yàlla may ñu ci kàddu suñ ci noppee nag defuñu ñuy war def loolu moo tax ñu jël suñu engagement ànd ak suñu collectif boo xam ne si ni nag Sénégal gépp ñoo ñoo ñoo si ànd pour xeex injustice bi nga xam ne moom moo am ci boulangerie bi xaadima suñu la déggee bu baax muy mel ni rek ci si ay ay biiri wax am ngeen yaakaar yow ak ñi nga àndal ne état lépp lu mu war a yéen mu ngi koy def mais rek ki taxaw seen diggante mooy euh, ki nga xamante ne moo leen jiite. waaw suñu suñu suñu delloo ginnaaw rek en mille 2014 euh, ci fin 2015 bi 2014 euh, début 2015 bi état Sénégal jëloon na. 150 pétrin pétrin moom mooy li jaxase farine bi jox ko boulanger dotali leen ko dotee ko président Amadou jaay ko jaay ko 1 million 500 mille yi xam nga loolu état loolu njàpp jàppale mun ko romb mooy fekk na suñu suñu si liggéey ñu loolu lañ soxla mooy jox ñu ay outils waaye pas nga ñuy lebal ay xaalis outils yooyu nag bi ko état defee pour lan la pour ñu euh, promouvoir euh, céréale locale bi waaye bala ngay naam da fiy nekk som état mi ay jéego tey état tamit ànd na ak banque mondiale di jàppale boulanger ay financement waaye ñun boulanger dañu bëgg du ay financement li ñu soxla mooy ñu réglementer secteur bi ba boulanger bu nekk soo xëyee di dem nga am euh, nga am fierté fi nga jëm nga xam ne yow boulanger nga nga mën a génn ne man boulanger laa waaye boulanger yëpp dañuy nëbbutu kenn du nangu ne man boulanger loolu nag euh, lajj la lajj goo xam ne euh, président Amadou Gaye ak ñi mu àndal ñoom ñoo ko ñoom ñoo ko ñoom ñoo ko ñoom ñoo ko def li ko waral mooy bu mënoo jiite vingt vingt cinq ans yow say ñi la neex rek ngay àndal képp ku la critiqué nga nga nga ne bokku ci man d'ailleurs moom ci ay waxam nee na man du ma te eh, yaakaar naa li ma la wax nii léegi ay firnde la wax naa la boulangerie yi ma tijji yëpp wax naa la fi ma jaar moom nee na dañ ma génne ci groupe bu mburu bi bi nga xam ne moom la ñuy wax ñun ñun boulanger yi fii ci Dakar génne ma ko région de Fatick génne ma ko région de région de eh, Saint-Louis lu ko waral mooy bëgguñu dégg dëgg li ñu bëgg a dégg mooy koo xam ne euh, da ngay topp ci ginnaawam rek lu mu wax nga ne waaw soo amee euh, loo bëgg ñëw ñëw ci moom raam ci moom mm, soo ko soo ko mënul nag moom mu def la noonu attaqué la loolu dafa dafa dafa dañoo sonn ba pare mu jël service service yi bal ko ci kaw boulanger yi pour lan boulanger yi amuñu amuñu ay këyit amuñu lii amuñu laa loolu du rolam rolu rolu président du jaxase sa ay membre ak état bi da nga leen woon défendre waaye fu mu toll mi ngi naan boulanger yi déclaré wuñu ñi amuñu registre de commerce ñi amuñu nii yaa ñi amuñu ay ay ay wax di maanaam daf ñu mettre en mal ak état bi ba nga xam ne kenn joxatuñu cër te loolu wa du cëram kon nag ñu ñi nga xam ne ay acteurs lañu dañu war a défendre suñu métier te ku régler problème boulanger yi régler nga problème Sénégal ndax euh, emploi bi am na solo am solo goo xam ne surtout emploi indirect bi nga xam ne indirect la mooy maire bi nekk di jaay mburu si këram mooy ku yore kesku bi mooy yooyu yooyu ci ne ci garage yi yooyu dafa am solo emploi boo xam ne nag état dama ñu la woo état mu mu encadré ko. Euh, gunge ko ndax nit ki mënu ko wax bàyyil te jàppaloo ci dara ndax nit ki soo ko bàyyiloo lii da naa ko jàppal ci lii kon nag euh, ñun ñaan ñu ko ñaanuñu état bi xaalis lebuñu ko li bëgg moom mooy suñu suñu secteur mu bàyyi ko xel euh, teg ci bat loolu lañu loolu lañu soxla. alors bi léegi bi nga xamante ne coow li jug na ak léegi xaadim ñu gis ne yéen a ngi dund loolu ak moom seen président bi ba léegi lan moo tere ngeen jëlee ko fii lan moo leen gàllankoor ba waa xam nga euh, nit ki mu mënul euh, moo nekk si biti di organiser ay élection président bi moom mën a war a organiser élection yu valable te moom nanguwu ko jamono yi nag euh, jur nañu benn le 21 mai suñu président Cheikh Diack bi nekk Diourbel envoyé nañu benn plan boo xam ne dafay wax ci ay AG yu président Amadou Gueye war a amal waaye ñun dañu xaw am am njàqare am am ñun ban réew lañ nekk ndax ñun ay Maliens lañ wala ay Gambiens lañ wala ñu ay Sénégal lañu duñ xam fan bokk ndax fekkee moom mi ngi fi depuis vingt cinq ans nga war a organiser ay élections mais nga jox nit ñi cër jaay nit ñi ay quarte membre woo leen ci waxtaan amul benn raison man maa ngi raison yi wax yëpp maa ngi foofu amul benn ndaje buñ ci woote pour waxtaan ci wàllum assemblée générale bi moom daal moo woo ay fukki nit ak juróom moom mooy ay ay présidents yoo xam si ni moom moom la ñuy liggéeyal ne la kenn ku nekk na nga tànn fukki nit ak juróom pour ñu ñëw amal ay AG ci loo xam ne toll na ci 1800 boulangeries même sax nga jox nit cër. nga communiquer ko wala ci ay réunion wax ne carte bi kat ni lañ koy jaayee mu nekk njëg yomb goo xam ne dina romb juróomi téeméer mille ba boulanger yi mën ko jënd ndax boulanger mu ñu jënd carte bu soo defee moom boulanger bu nekk man mën a bokk ñu mën a def ay ay élection yoo xam si ni euh, état bi dina ko arbitré képp ku boulanger yi wóolu nga doxal leen seen seen kàddu ñu ngi ci di liggéey nag saga moom euh, yàlla dogal na moom moo xëy xëy ne dafa bëgg dem ay assemblée générale ñu ko nag du fi amee d'ailleurs man euh, bind nañ jënd suñu avocat suñu di jënd avocat avocat bind nañ ministre de l'intérieur euh, ba yóbbu ko euh, bind nañ ministre du commerce mi nga xam ne moom mooy suñu titel bind nañu préfet de Dakar ak préfet ak gouverneur de ak préfet de Diourbel xam ne ñoom ñëpp jot nañ jot nañ ñu ëpp ci ñoom jot nañ seen seen ay seen ay lettres yi ñu leen bind pour dénoncer injustice bi nga xam ne dafa bëgg am ci métier mi boulanger te boulanger métier mu am njariñ la. te bëgguñu euh, mettre euh, réew mi en mal. alors rek ngay tudd salaire bu 80 bi nga xamante ne ñenn ci ay boulanger yi moom la am comme salaire ndax yéen en tant que collectif de euh, ne di nga xam ne à partir war a am salaire lu ñu rek mooy xam nga nit soo koy dimbale da nga koy dimbal dimbali gu leer état su bëggee dimbale boulanger yi bëgg jox ni xëy. daf lay jox salaire boo xam ne di nga ci mën a am kër takk ci soxna say doom nga mën leen cee faj jàngal leen ci te xam ngeen ne quatre mille mënul loolu te benn salaire boulanger rombul quatre-vingt mille ñun nag ñi ngi wax état bi ne ko plus de quarante-cinq mille personnes ñi ngi ci sonn ci fitna jooju lañu dugg bu ñu xëyee dañuy daw guddi gi ñu fanaanee liggéey bëccëg gi nga du am la yóbbu sa kër ndax boo fay ko sax xaalis doo xam noo koy def moo tax sax boulanger yu bari mëntuñu xaar weer bi dee par jour la ñuy par xam nga boo yeewoo ñu fay juróomi téeméer ngay boroomu kër wax dëgg yàlla mënul ci kër gi dara ak jamono ji naqaree kon lu ñu bëgg bu ñuy defar prix mburu bi ñu bàyyi waale xel ñi nga xam ne ñoo ngi ci biir secteur bi ndax mënoo rek wax wax wax man euh, patron boulanger la waaye sama métti bi gën a métti mooy boulanger yi li leen di fay ndax euh, euh, li may am mënul leen a yokkal état moo war a defal prix boo xam ne daf ci dugal boulanger bu nekk mu jàngal la ba nga man am sa métier normal waaye ñu fay la fay goo xam ne su ëllëgee yow sa doom wala sa rakk di nga ko dugal ci métier mi waaye ñun ni ñu seetlu mooy euh, pour nga am sa ouvrier boulanger dafa jafe léegi ndax kenn nangootu ko kenn nangootul nekk boulanger ndax lan ñàkk métier bu ñàkk njariñ ndax xam nga ne salaire boo xam ne mu romb 80000 mun yor kër moo tax ñun ñu ngi lancé euh, euh, appel état bi mu revoiral prix mburu bi waaye su koy revoirat nag mu bàyyi xel lool euh, ouvrier yi nga xam ne ñu ngi si biir di liggéey te margo yi dëkk yu ñu jógee ñëpp salaire boulanger yi mi ngi toll ci cent 180000 francs 180000 nag ñun lañ demandé état suy defar prix mburu bi chaque boulanger mu notifié la cent quatre mille francs nga xam ne yow di nga mën a épargne tuuti mën a am du am compte banque mën a am kër mën a yor sa njaboot euh, te feer ci métier mi bu ëllëgee sa doom nga mën ko dugal si métier mi. lan nga yaakaar ne rek état su ko defee war na mën a sukkali secteur bi ba tey ku ci nekk mën cee gis boppam. état li mu war def rek mooy euh, maa ngi remercier madame la euh, ministre bi nga xam ne. keroog gis naa ci moom ne am na yéene ci secteur bi pour defar ko waaye dafa bëri ay blocage blocage bi mooy xamul euh, vrai acteurs yi xamu ko président Amadou Gueye lay gis moo indi indil ñu ko neex bu ñëwee nit li ko neex lañ koy wax te nit ki nag problème mënu ko régler te xamoo ko kon problème bi mooy am na ay commissaire au enquête économique moom d'ailleurs sax moom d'ailleurs sax euh, ministre bi commissaire la au enquête économique kon am na xam-xam ci wàllum wàllum commerce kon bu mu ko jël di ko bàyyi ci loxol koo xam ne euh, vraiment ay loxoom seetul moom en tant que euh, technicien ci wàllum commerce na sant euh, ay commissaires yi ci région yi ñu def enquête ci ci métier mi moo dajale boulanger yépp laaj seen xalaat d'ailleurs sax ñu collectif bi ñu ngi bëgg ñu ngi koy lancer appel moom madame la ministre mu mu recevoir collectif bi ñu wax ko seen ay doléances ndax kat dara koy régler ci teel teel gi moo gën bàyyi ba mu ëpp loxo nga ba Euh, kilifa su déggee euh, euh, ak njabootam di coow na na am na am na tàll ñëpp ñaar loxo déglu leen ku ci nekk ci dëgg mu ne si dëgg a nekk ku ci nekku ci dëgg mun la nekku ci dëgg loolu la kilifay doxee waaye kilifa du par du parparloo ñu ngi koy lancé appel mu mu woo collectif bi déglu leen xam lan la ñuy wax fekkee li ñuy wax dëgg la mu appuyé ko fekkee du dëgg mu leen topp leen fale bu li weesoo nag te état bi nga xam ne moom ngeen yaakaar tey wuyuwu leen yan plan ngeen fas yéene tëral pour xeex bi nga xamante ne moom ngeen xeex tey mu bu njëkk bi rek mooy euh, bind leetar kilifa yi jox leen cër leen yàlla jox wax leen ne yéen kat yéene suñu ministre commencé ko par ministre de mi nga xam ne bépp élection bu am ci moom la euh, moom a ko bind ko leetar waaye defar ci amplier euh, si ministre du commerce bi nga xam ne mooy suñu tutelle wax leen wax boole ci seen production jox leen ko wax nañu branché kat nañu saytu président Amadou Gueye mi nga xam ne dafay nekk plus de vingt cinq ans te liggéeyul secteur bi wax ko ne ko suy dem élection na dem ci élection yu leer na bàyyi bépp boulanger bu yor fuur fuur bi ñu xam ko mu bindu ci list bi am carte membre ñu woote ki ki nga xam ne moom moo légitime ñu bàyyi ko mu doxal programme loolu la ñuy xaar mooy première production bi euh, deuxième bi dinañ dem ci médias yëpp commencé ko ñu ngi ñu ngi leen ci euh, jot ñu jot ay xibaar rek woo ñu ñu ñëw teew fii ñu leen ci sant bu baax a baax loolu moom mooy euh, njariñu presse presse mooy dafay dafay dafay logique ci ay propos maanaam su déggee coow day day jóg xam lan moo war coow li ñu ngi leen tamit euh, tàllal loxo ngeen dem seeti président Amadou Gueye mu joxe tontu ci li ma wax waaw plus de mi ngi fi état joxoon na ko vingt euh, cent cinquante pétrés xamuñ fu mu nekk xamuñu amul benn bilan bu ñu rendre ñun boulanger yi statut règlement intérieur yi nga xam ne si nii moom fédération am benn boulanger mosu ko gis ñun de mosuñu wax man ne plus de 22 ans maa ngi ci maa ngi fi amul benn yoon bu ñu ko mos wax élection yi mu bëgg a euh, organiser. amul benn réunion buñ ko buñ ci tëral ci réunion Sénégal yi loolu nag yaakaar naa journaliste yi yéen war ngeen ci dox rôle maa maa ngi ci woo euh, télé yu mag yi di ci woo euh, presse en ligne bi di ci woo ñëpp loolu mooy première et deuxième plan li gis nag dañ koy denc ba ci kanam. ci diggante boulangerie ak euh, Sénay président maanaam Sénay njiit dañu koy bàyyi rek moom mi nga xamante ne moo leen fi teewaloon di Xaadim Silla mu daal di euh, tàggatoo rek euh, laata ñuy dikkaat waaw maa ngi sant bu baax maa ngi bëgg indi ay tuuti leer moom nee na ci waa ITV ñu ngi ko jox benn benn i rajo maa ngi dégg mu ne man Xaadim duma boulanger maa ngi ko dégg it mu ne awma carte membre man vice président laa ci région de Diourbel kon région de Diourbel man maay vice président bu fédération bi kon ñoom loolu fekkee na man xool ba ma nekk mu boulanger ñu xoolee ba ma nekk vice président kon ñoom loolu dañoo lajj bis tegu mooy man juróom-ñeenti fur laa yor moom moom nañu wax ay furam man pile de 150 sacs lay lay lakk moom nee na ñetti saako lay lakk moom moo ko wax moom président bi kon fekkee man du ma boulanger kon Sénégal boulanger amu fi ndax am naa ci métier 22 maa ngi ci région yu bari di fa liggéey wax naa wax naa sama tur yu fuur ñu xam ko yëpp laa déclaré bi ci tegu moom nee na man samay fuur déclaré ma leen mais mais moom loolu du amul du compétence am du compétence su moom di régler man ndax am naa euh, déclaré naa wala déclaré wu ma moom na yem rek ci euh, boulanger la man boulanger la waaye bu ma euh, wax ne man déclaré wu ma nekkuma en règle loolu du loolu du rolam loolu du compétence am ñu ngi koy wax mu yem ci place am te xam na ñun ay Sénégal la ñu yu liggéey suñu place ba egsi fii suñuy combattre nag combattre ci idée tontu ci question yi maa ngi leen di nuyu di nuyu sama mbokki boulanger yépp euh, di sant collectif bi nga xam ne ñoo ma délégué euh, ci seen biir ëpp ma ci xam-xam maguma ci waaye ñu xool ne man maa leen taxawal pour ñu combattre injustice bi nga xam ne moom moo nekk ci secteur bi wasalaamaaleykum wa rahmatulah wa a jërëjëf Xaadim Sila mbokk yi mu nekkoon rek li ñu leen andiloon ci xibaar fas yéene woon ci waxtaanee ak ki fi teewal tey kuréel gi yor bépp boulanger alors lii lañ lii rek lañ leen a andiloon tey ci xibaar donc dañ leen jox rek dig daje te di leen wax ne daañu leen toppal rek lépp lu nga xamante ne ni tuuruwaat na ci ci xibaar jaa ngeen jëf